Elvision mi déglu leen di ko seetaan. Sophie lépp fi lay leeree. liggéey rek a wóor. fii donc fii rek fii kese ci Elvision fii lay tànge fii lay xoyom xoyomee du feneen maa ko wax. nit ku baax xam nga lu mu war a am. ñax ak salaat du ñu benn ku weddi bi nee garab. Euh, di def lu bari di wax lu néew réew looloo koy doxal. réew wax ju bari du ko doxal mais jëf mo koy doxal so bëggee lu lèr nang ko japp lepp fi lay leeree xam naa ne ñii doomi rew mi lañ ñun ñëpp ñu and do dem ca kaw laay lele law, lu ne fa nga kën du ko jeex yéen laay béggee ku baax da waram gis-gis ba melni ñoom yéen amuleen moroomee. leen ñaanal gudd fan ak wér. am xam nga àdduna booy bëreek moom. da nga jël yàlla def ko sa entraîneur nga jël muñ def ko sa entraînement. yàlla ku mu coaché ku lay gañe suufa ñu dàq muñ foofu tu mu ñu mujjee toog maa mënta ñàkk waaye wala dugg bett.